maintenant pour euh, le cas du Sénégal euh, xam nga euh, la la défaite du Sénégal il faut que ñu am beneen jàngat parce que aujourd'hui le problème du Sénégal c'est que tout le monde est entraîneur tout le monde est coach tout le monde est dirigeant mais euh, parce que tout simplement Aliou n'a pas pu franchir les huitièmes de finale et aujourd'hui tout le monde vaut sa peau moi sur ce côté-là je ne suis pas très d'accord parce que aussi quand on est sportif nga am vécu sport am na nooy jàngatee un peu euh, un, un entraîneur qui ou un joueur qui échoue parce qu'il n'y a pas que lui euh, c'est l'ensemble de l'équipe qui a qui a qui a pêché à un moment pourquoi qu'est-ce qui s'est fait il faut savoir que c'est pas Aliou Cissé qui court dans le terrain c'est pas Aliou Cissé qui joue c'est pas Aliou Cissé qui marque Aliou Cissé ay xel lay jox xel boobu maintenant nag yàgg nañ ko dox xale yi yàgg nañ ko jàpp yàgg na dox yàgg na ànd ak équipe bi équipe bi di si gagné parce que man je me ay une émission chez votre confrère euh, Diakarlo il y a un an et demi mais quand les gens voulaient la peau de Aliou Cissé mais pourtant c'est des juridis du sport qui étaient là-bas assis foofu la ñu toogoon euh, des chroniqueurs mais man leen vous voulez mon avis man en tant que sportif moi je suis un, moi je suis pas un chroniqueur moi je suis en tant que sportif eh bien moi je pas d'accord que ñuy dàq Aliou Cissé Aliou Cissé je ne le connais ni d'avant ni d'hier musuma ko gis mais je ne suis pas d'accord en il n'a peut-être pas de grosse victoire ni victoire bu nga xam ne mën nañu ne c'est éclatant. a été champion d'Afrique. oui attends non non ça c'était ça c'était avant le championnat d'Afrique. Ah, ça c'était avant c'était quatre mois avant le championnat d'Afrique. Mhm. les gens voulaient sa peau voulaient qu'on pour mettre quelqu'un d'autre mais moi je suis pratiquant je vous dire une chose moi quand je joue parce que peut-être je suis pas du football mais du basket mais quand je joue et puis à quatre mois d'un événement important ñu génne ko ñu indi keneen kooku bu ñëwee d'abord un il faut que d'abord ci y ait des atomes crochus il faut que voilà ñu ñu ñu xeeñtu ko ñu respirer ko ñu bugg a nekk moom waaw lu mu ñuy wax aussi ñu mën ko comprendre parce que mën na foo ñëw foofu ñëw foofu wax fa ay chimères yu nga xam ne on ne le comprend pas mais mën na leen yow kii il a toujours des résultats ba léegi il n'a pas fait de faux pas mais au nom de quoi par antipathie ngeen voulait absolument qu'on de là mais moi je dis en tant que moi sportif pratiquant je suis contre je suis pas d'accord et puis surtout qu'on quatre mois mais bàyyi leen d'ici quatre mois championnat du championnat d'Afrique bu jàllee s'il n'a s'il n'a rien en ce moment vous avez le temps maintenant de changer mm-hmm. yàlla def mu gagné. mu indil ñu coupe bi. mu indi coupe bi. et tout le monde a applaudi tout le monde dit c'est le meilleur. Mm-hmm. aujourd'hui il a il a perdu et on veut le le le, non moi je suis pas d'accord non gis nga il faut savoir raison lan nga d'accord ci lan nga d'accord nag léegi. si lan la d'accord qu'on le laisse travailler. ñu bàyyiwaat ko ci. bien sûr bien sûr parce que Aliou Cissé quoi qu'on puisse dire c'est un grand entraîneur et dafa am fayda ak fulla ba pare créer benn discipline civile gis nga foofu euh, euh, euh, am na ko ko doon wax xamatuma kan la gis nga il a de lui que des milliardaires ñu ko wër ñoo ñëpp c'est des milliardaires. il a loolu mën na am influence le fait que y ait des defal na defal na lui c'est pas milliardaire mais c'est un petit millionnaire parce qu'il a été professionnel. Hmm. ba pare xam football. mais il a autour de lui des milliardaires si aujourd'hui il a il est, il arrivé à créer une discipline de ces milliardaires je te dis c'est déjà gagné. fenn rek la d'accord la peut-être Aliou Cissé fenn rek. ça je le dis. c'est le fait d'avoir des adjoints étrangers autour de lui ça je suis pas d'accord ok am ay douar tout ça ah, machin mais état ah, mais président non non non non attends c'est point de vue ah, xoolal yow booy dafa nank xam nga yow da nga bëgg di je aujourd'hui c'est pas le jour de polémiquer dama ne la c'est point de vue damay wax suma point de vue c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que am na si pexe wala am naa si solution je n'en ai pas mais dama ne je dis encore une ces préparateurs de ceci, de cela et tout ça, machin, on peut bien trouver des Sénégalais bien de chez nous autour d'Alun Cissé capable de faire sa Ouais, mais est-ce que, c'est est ce que dans ce cas de figure, le sportif que vous êtes ding ding ding ding ding ma ci gën a mën a leeral cest dire xam nga léegi wax nga ko il a aussi euh, la familiarité qui compte c'est dans dans une collaboration technique mm-hmm. léegi bu fekkee même si on trouve des profils yu ko mën a def alors que ñooñu profils yooyu noonu aussi ak Aliou Cissé Euh, bon l'ambiance c'est pas trop ça est-ce que du du du du am lu muy lu muy lu muy am njeexital si si lii bi est-ce que c'est ouais. pas y a pas une question de voilà de de de familiarité d'un environnement boo xam ne parce que ku nekk fi ngay évoluer mm-hmm. euh, ak ñu daal sa xel ñoom nga mën a euh, nekkal effectivement bu fekkee tu parles des techniciens mm-hmm. euh, ces adjoints ah, waaw adjoints ak waaw waaw ma ne la bu ñu leen génnee indi sénégalais boo xam ne ma ne bu ñu indi sénégalais boo xam ne c'est lui Aliou Cissé fayda ak fulla bu mu am mais encore une je vous dis Aliou Cissé je connais pas. parce que sénégalais da nga indi. mu bëgg sa place mu mu indi muy ñëw di lorgner sa place mais mais dama de plus logique y a de plus logique parce que ça il faut avoir de l'ambition waaw mais mais ah, tu le fais la loyauté mais sénégalais sañ na la sax yàqal pour que après ñu dàq la moom mu ñëw toog. non non non parce que parce que yooyu yooyu sa pensée la parce que gis na au niveau. Eh, on a yooyu sa pensée la loolu. non non non loolu gis nga dama ne la le sport au niveau. Hmm. di ngay gis benn niveau bu nga xamee ne loolu loolu amu fa place. ok et Aliou Cissé je crois am na benn fayda fulla bu nga xamee ne je ne crois pas que loolu mën na ko vivre. et puis puis yow li ngay wax ndegam comme genre des atomes crochus entre Aliou ak ak des Sénégalais. que nous am ak les Européens mais mais Européens foofu ça peut être des bénis oui oui parce que ça les arrange d'être là et machin Sénégal bu gagné ça ils ont des récompenses comme la dernière fois ils ont eu 50 terrains ils ont eu 50 millions. mais pourquoi pas en Afrique pourquoi pas en Sénégal. du mais du moment que ces étrangers là ñu ngi def seen liggéey nu mu waree la je suis pas je encore une fois suis je ne regarde pas mënuma si parce que doo gis le contraire chez chez les Européens tu le vois très rarement ou, pratiquement pas du tout mais le pourquoi ici est que ici est-ce que nous on souffre de cadres de de de capables de de de seconder Aliou Cissé ou capables de d'être des préparateurs physiques euh, de ceci ou de cela est-ce que loolu dafa manqué Sénégal y en a plein. mais man nag c'est mon point de vue ah. maintenant euh, nag. Euh,